pour le mot de la fin mi nga euh, sensibiliser joxe un message par rapport euh, à la à la jeunesse euh, mais yow on va terminer peut par là ban message ngay dénk autorité yi face à cette situation mais également un message pour pour la jeunesse. waaw d'abord ñu ñu xam ni lii nga xam ne moom mooy wàllum immigration bi irrégulière bi jot na ay jéego waxuma waxuma ay lu ñuy bind ci kayit ak di ko toog ci bureau. mais mu doon des actions de terrain yu concret yoo xam yu concrètes yoo xam ne tey jii day mën a téye xale yi sànq yaa koy wax la responsabilité est partagée parce que ñun du ñu mës a cautionner kuy jël géej di fa jaar di fa dem loolu duñ ko mës a cautionner waaye bu nga xam ni dem na ba def loolu tamit euh, responsabilité bi nga xam état moom la ci am il faut que maanaam question de l'immigration irrégulière état jël ko en mais mais dafa maanaam dafa dafa xaw a des dafa des je peux donc li ñuy sensibiliser état bi mooy ñu ñu def le tout ba teg fi loo xam ne xale yi dootuñu envoyé di jéggi feneen ngir di fa wuti leneen loo xam ne tey jii moom moom moom moo fay am. leneen li nga xam moo jëm ci xale yi mooy il faut faire ce qu'on appelle la déconstruction mentale déconstruction mentale je peux le maanaam conception il y a l'imagination et la perception. Oui. perception bi nga xam ne ñoom am nañ ko vers l'Eldorado Eldorado nga xam ne jàpp nañ ni ku ca demul ñoom mënul tekki te demeewul noonu. imagination bi nga xam ne ñoom it nekk na seen bopp sur les définitions comme tekki ndax tekki mooy tabax ay étages. Mm-hmm. ndax tekki mooy dawal ool la tekki mooy dese sa bakkan nekk ak sa waajur ndax tey ne ne bu fekkee ne da nga bëgg jox sa yaay 2000 francs 2000 francs 2000 francs xeeb 2000 yi wuti 10 000 des ci géej gi ko koy joxati 2000 c'est une question primordiale bu ñu war a poser les mm-hmm. parents yi aussi certes maanaam da leen sensibiliser waale ngir la pression sociale bi nga xam ne aussi mi ngi ciy ci ginnaaw euh, de ce fait que ñu gën koo ñu gën koo mën dal waaye daal état bi li ñu mën a wax ci moom mooy nañu dimbali ngir yàlla nañu dimbali ñii moom xaw ma ban cas mais cas bi moom lañ ci jug ci nu mu nu mu nu mu gën a gaawee ndax ñi nga xam ne dugg nañ ci désert bi amatuñ seen information te ñun ñoo nekkoon base bi nga xam ne ci lañ mën a amee information di jokkoo ak ñoom kon on a plus de contact nga xam ne actuellement ñoo fa desee desegum te nekk ci écran yi ñoom ñoo fa nekk te fi may xam ne quatre jours lekkuñu naanuñu ñu a une femme enceinte y a des enfants y a des personnes malades donc ñi ngi ñaan ngir yàlla dañuy ñaan mm. dañuy ñaan dañuy ñaan ñu dem jëli ñooñu indi leen fi nga xam ne moom mooy seen réew donte ñoom manifesté nañu la volonté de revenir au bercail de leur famille donc c'est facile sauf conduite yi bi nga xam ne mooy tax ñu ñëw Pierre représentant consulaire bi réglé na ko ba pare lenn moo ci des mm. problème de billet billet pour ñu dagg si ñibbi si mooy loolu rek mooy problème bi <laughs> y a pas de procédure à faire y rien dagg billet rek ngir jooñu ñibbi si mooy mooy moom mooy kii bi donc fa laay jeexale euh, sama il faut en tout volonté pour mën a mën a def loolu président ñu bàyyi la nga nga tàggatoo ak téléspectateurs yi joxe yow yi tamit le mot de la fin. waaw xanaa juste pour dire à cette jeunesse que man particulièrement je comprends leurs préoccupations parce que il y a trente ans de cela j'avais vingt ans. Mm. mon seul rêve c'était ça man war naa jàng ji Europe war naa dem effectivement dem naa. Euh, moo tax euh, ce combat là ma daf ko sacerdoce mm. parce que mënuma d'accord xale yi di dee nii ci géej gi mais dama leen di wax ni dee ci géej gi pour tekki du solution mm, mm. Euh, nañu delloo si waat moi je parlerai de l'éveil à la foi mm-hmm. il faut ñu delloo suñu bopp ci yàlla mm-hmm. damay delluwaat ci gëm-gëm moo tax j'interpelle sur le système éducatif am am yàlla moo ko yore yàlla mooy may te yàlla xamul li war xam nga ñu ci bëri je comprends les gens m'appellent dama war a dimbali sama papa dama war a dimbali moi j'ai vécu le même problème mm-hmm. moi j'ai perdu ma mère j'avais neuf ans j'ai dit mais il faut que je réussisse parce que dama am ay rak mm-hmm. donc je comprends tout cela mais am am boobu yàlla moo ko yore te yàlla xamul li war xam nga lu mu xam lu jot mm-hmm. te yàlla dafay seetaan dugg ci géej gi foog ni solution mooy Europe loolu risque la loolu loolu erreur la mm-hmm. kon nañu delloo ci xel yi euh, ñu jàppale tamit ndaw yi les encadrer mm-hmm. parce que ndaw moo yore réew boo demee ba nga xam ni la jeunesse d'un pays se tue en Méditerranée du fait de l'absence d'initiative stratégique mm-hmm. des dirigeants il y a un problème ñun li ñu am ñeneen ñi amuñu ko mooy cette jeunesse là a ñi amuñu loolu buñ leen fowee nañ leen léeg déglu parce que aujourd'hui nous avons une jeunesse très structurée avec des méthodes structurantes suñu leen dégloo yokkute lay nekk ci du point de vue européen xam naa euh, le temps parce que voilà ils ont une grande part de responsabilité dans cette crise humanitaire là et il faudrait que l'Europe revoie sa position que l'Europe se remette en cause dans la gestion de ces flux migratoires